bu njëkk mu nekkoon communauté rural mujjee doon commune jaarale ko ci acte 3 décentralisation dëkk bu sell bi tubaa at yu mujj yi seetlu nañ ni dëkkuwaay yi dañ fee yokk nu bari jóge ci ñeenti kilomètres carré titre foncier numéro 528B bi nga xam ne ci turu Cheikh Ahmadou Bamba la nekk jamono ji mu ngi ci fanweeri junniy hectare loolee nag ci jàngatu yenn technicien yi ci wàllu aménagement du territoire du ñàkk ay jeexit. booy xool 30 000 hectares yooyu lépp dëkkewuñ ko. liñ ci dëkke moo gën a néew li ci des ba tax na tey jii fitna gi am ci wàllu dëkkuwaay yi ak yooyu yëpp war nañ ci mën a toog waxtaan ci saytu ko état bi sax def na ci effort parce que crée euh, créé na benn benn projet boo xam ni euh, avec la BOAD de 15 milliards boo xam ni c'est en cours bërki dem tañ ci CDD ak préfet ak gouvernement naa sax CRD la parce que gouverneur foon ak ak préfet ak sous préfet ndaam ak euh, autorité mairie bi yëpp ay autorités religieuses ak techniciens yi ñun wante biñ ko xaymaa projet bi toll na ci 85 pour cent de réalisation. waaye nag ba tey ay pexe ñàkkul pour ñu mën a andi ay pexe ci wàllum réaménagement ngir mën a andi ay tontu ci jafe-jafe yi nga xam ni bàyyeekoo na ci urbanisation bi rawatina nag inondation yi nga xam ni askan wi dañ koy dund bu baax. Touba rëy na àll bi rëy na dañ créé ay ay bassin yu mag yoo xam ne ndox bu ñëwee ñu ko fay jàllale créé ay déversoir yóbbu ko fa woo ilaa ñu wut ay canalisation d'eau pluviale yu baax ci dëkk bi àll bi di ndax ci dolli assainissement bi aussi dafa am solo surtout eaux usées parce que Touba màggal li fi ñu doomu adama dafa bëri te gis nga ni camion de vidange yi ñooy ñëw di yóbbu di yóbbu bout de vidange di ko tuuri te fañ koy tuur sax dafa fees. Touba suuf si dafa am valeur trente mille hectares yi doo ay caaxaan war nañ ko wutal beneen mode de gestion pour jox ay nit ñu koy saax saax di ko jaay. am na nag ay naal ak mébét yu bari yuy xaar màggug dëkk bii di Touba ngir nag loolu ñu mën cee soobu techniciens yi bokk na ci seeni mébét gën a jëmalaat titre foncier bi kem ni ko xalif général des mourides bëggee moom mi nga xam ni wane na bëgg-bëggam ngir Touba am ab plan directeur d'urbanisme